ci gàttal rek nitu yàlla la ñi mu ko bokkee ñi mu ko bokkalit taalibe Sëriñ Tuubaa la lépp wéy nag sëñ Saliou doy na ci lépp doy na soññ ci lislaam doy na ci sëriñ bi doy na ci taalibe doy na ci xam-xam nañ su ko lim mënuma ci wax daal yàlla fi ko te laaj ko ci xéwalam yi tam bu dul jeexale te diglu ko ko laaj kenn jéemoo ko lu ko gën laaj ko sant ko ak laaj ko ñaan ko Rabbi la ma xam daal man Amadou Gueye mooy doomu sëñ Tuubaa jooju il était légaliste et républicain amoon na yéene lool ci dëkk baayam bi bi koy xam noonu it noonu la dëkkee jàng alxuraan guddi ak bëccëg foo toll alxuraan bu yorul kurus gi ribiir alxuraan a nekk ci làmmiñ bi bu tëddee ci njowaan bi bu tëddee ci néeg guddi boo nekkee ci néeg bi mu néeg bi lëndëm nañu benn bis gëj na ko gis lool fekk sëñ bi nekkoon ci xel mu génnee mu daw si ñëw di euh, tafu si far fekk ab pepp ceeb yu tuuru nii sëñ bi yor ab kaamil nii ci loxo bi di for pepp yi bi mu demee ba nar tànk bi nar laal ceeb bi rek da koo xëcc bàyyee na waa Sénégal ay junni junni yu am njariñ te bàyyeewul Sénégal benn personne bu amul njariñ loolu moo a bàyyi xel léegi mun naa am néeg di baaxoo wuñ di dugg te waxoo asalaamaaleykum daal la koy wax ci waxee wu yomb woo ko mën a xamee daal ne asalaamaaleykum day dana day day ubbi buntu jàmm day feewu ay day waral ak ak ba ba nga xam ne boo xamul yàlla yi da xam ne intere bi jàll ko ci la Seex Saalihu Mbàkke bokk ci nitu yàlla yi nga xam ne seen digg ak seen boroom amul taas benn yoon ci diir bi nu fi nekk ndax li mu doyle woon ak boroomam matal na ko sëkk dundam jéegoom ak jaar-jaaram lépp mat lépp leer te lépp a sell sëñ euh, jëmm la joo xam ni daa bokk ci baqiyatu salaf mooy dafa bokk ci ñi fi mujj te bokkuñu ci génération bi ca jamono jële lañ bokk mooy mag ña ay waajuram mm, ridwanullahi alayhima du woonatul daanaka lu kenn di jàngale ndax soxna Fat Jaxate uh, mooy waajuram bu jigéen soxna Fat Jaxate suñ mu daas sa ko jur suñ mu daas sa defe naa réew mépp ko xam bokk ci yàlla ci ñi génération bi jiitu daal ci yoonu murid ci la bokkoon. nekkoon nit koo xamante ni kii alxuraan rek rek rek moo di dundam nekkoon nit koo xamante ni kii ku maandu la koo xamante ni kii jaamu yàlla képp moo di dundam. taalibe sëñ Tuubaa la woon mag la xam naa ci at moo sëñ bi duñ soree ay at yaakaar naa ne eh, waaw du ñuy war a soree at xam nga ku ci war a kii. jaamu yàlla ak dundam loolu li nga xam ne moom la mbaakool xam. sëñ Modou Dia sëñ Modou Asta Jaxate ci diggi loolu la nekkoon jaamu yàlla ak liggéey dunde rek la xamoon mm, ba tax na muy nit ku sell koo xam ni loolu tax sëriñ bi taamu néegam ngir jële fa ñëm fa jële soxna fa Jaxate ni mii nag kenn la ca di koo xam ni kii moom moom moom xamuñu suñu Modou Asta waaye moom xam nanu ko man jotuma koo xam lu bari ndax liñ fi fekkante xam naa ne eh, du ëpp ay juróomi at yooyu dund nañ ak moom li ñu ak moom it la ko Sëriñ Tuubaa jàngaloo lépp pratiqué na ko si kanam nu ko gis mooy moom jàng na alxuraan ba wattu ko jàng na xam-xam ba sori ci lool. da daan jàngale euh, téere xam-xam yi téere Sëriñ Tuubaa yi da ko daan jàngale. ne jëmm yoo xam ni moo leen jàngal. Euh, sunu maam soxna Mati Jaxate nga xam ni doomi Sëriñ Abdourahmane Jaxate la. moo ko yar. moo ko jàngal Masaalikul Jinaan. moo ko jàngal Risaalul Xayrawaani. soxna Fat Jaxate nit la woon koo xam ni. bari kersa lool yéwén lool mën a mën a dimbalee mën a saraxe mën a joxew ñam ku gis rek eh, jàpp na laa war a joxu ñam nekk koo xamante ni ko ku amoon xam-xamu diine la nekkoon koo xam ne kii itam ku dëggu ku dëgër ku ñeme jaamu yàlla ku ñeme jaamu la nun miin nan ko loolu lan xamoon ci moom mokkal xasida yu baree baree bari nee na bokkoon na ci ñi daan dëbbe xasida yi di daajal sëñ Tuubaa di ko jàngal daan yëkkati xam nga sëñ Tuubaa leer yi tagg yonent gi muy tagg yonent bi ak di ko di ko màggal di sant yàlla xasidaam yi leer yooyu da ko daan moom moo jiite woon njàng bi moom sëriñ bi jëmbam ak ñu mu tànn ñu war a taxawee taxaw boobu te it mbindeef yépp ñoo ko war a jàppale ci liggéey liggéey bu sell boobu ba ci jigéen ñi sax muy waa këram yi am na ci ñoo xamee nu ñu war a tooge bu waxtu wa jotee mu ñëw déglu leen ñu santale ko yàlla ci xasidam yooyu soxna Faati ci ñi daan dëbbe la moom kooku nag mooy waajuru euh, Serigne Saliou nga xam ci moom la bàyyi ko bi sëñ bi ñëwee njaareem foofu la soxna faati door a amee Cheikh Saalihu nag ñu jiitu géej gi ñooy doom yu mag yi ginnaaw géej gi la la la feeñ am na ci ñu ko am na ci ñu ci mag kon ci ay doom yu mu mujj la bokk ci zilqaada muy 15 zilqaada 1915 boo demee sëñ Lamine Diop Dagana indi na ko ci Irwaawu Nadim Cheikh Saalihu Mbacke mi ngi ganee àdduna ci atum 1915 fee nekk jant bu fas yéenee leeral jamonoom ak waa jamono bi mu feeñee jamono ci atum 1915 la Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana bindoon ci moom bayit yi Bamba ngi toog keroog ci suuf di waxtaan ak Cheikh Malamine Diop ba woon ñuy waxtaan am ndaw lu ñëw ci Bamba daldi koy deey ni soxna faat jaxate am na gantay mu jël loxoom bu tedd booba Mbàkke bind ca suuf asaal yaa cey Mbàkke Muhammadul Amin dem dellu jël xalimaam bind ca ay bayit yu wér jox ko Xadim abqaalana bi fadli saaliya baaxil lana jaada bi saaliya abqaaw samsan fi sama adari yasxalu minu waj o kaaliya sëriñ Saaliw nag bi mu feeñee bokk ci caati sëriñ bi sëriñ bi dafa am ay taaw. maanaam sëriñ Modou Moustapha sëriñ Fallou. mooy ñi nga xamee ne da leen a meññi ci jamono yi muy nekk ci jihaad ji ak metit bi ak liggéey bu metti bi caat yi nag mooy gannaaw bi mu liggéeyee ba ba liggéeyam noppi ñu koy fay muy sant ci la kon ñoom ay may yàlla lañ waaw te ku dem ci mbindi sëñ bi da ko gis fu mu koy waxee bisit sëriñ bi ñëw di soññee ci ab jataay sëriñ bi doon ku ràññee ba Seex Saaliwu Mbàkke moo nga fa nekk ca biir sëriñ bi ñëw fekk ko fa ba mu ñëwee toog ci wetam ñu puus ko sëriñ isa jën na ko xaw a puus ko lam jublu woon puus ga mooy ngiruk teral Seex Bamba ñëw am fu mu toog fu jàpp ndal sëriñ bi xëccaat ko mu ñëw ba jige ko isa ngi toog keroog booba mu dal ni ko isa xanaa xamoo ni kii sa doomam gaa yëpp xool ko xam ni mbàkke moomam i ndaw noonu ci zahir amoon relation bu bu neex digganteem ak sëriñ bi comme rek nit ak waajuram rek léeg-léegi sëriñ bi fàddu xalwa dugg ci di nekk ak boromam bu génnee it bu ko gisee koy namm day daw ñëw si eh, namante ko moom wax nañu benn bis gëj na ko gis lool fekk sëñ bi nekkoon ci xalwa bi mu génnee mu daw si ñëw di ko euh, tafu si far fekk ab pepp ceeb yu tuuru nii sëñ bi yor ab kaamil nii ci loxo bi di for pepp yi bi mu demee ba nar a bi nara laal ceeb bi rek da ko xëcc mais ba mel kuy bëgg daanu sëñ yu fàttewul loolu ba ba bi muy nekk mag da ko daan nettali. sëñ Saliou jàng na alxuraan ci. kanamu waajuram ba wattu ko ci kanamu waajuram sëriñ bi jox ko nijaayam sëñ Hamsatu Jaxate lam ca wax ba ko koy jox rek lu significatif la nee na ko joxuma la ko ngir ne ni di def mooy eh, jël ko jox nijaayam loolu aaday wolof la mu ne loolu nag taxut am lu ma def ci yow te bëgg nga def ko ci ñoom dama laa tarbiya def ci yow ngay nitu yàlla def ci yow jikko ju baax dama bëgg nga def ko ci moo leen jël yóbbu leen Touba fii la ko sëñ Touba waxoon nekk fi gannaaw bi mu tarbiya ba noppi ci Touba ci ñi fi njëkk dëkk la Euh, moo tax gis nga sëñ Saliou ku yàlla dimbali la sëñ Tuubaa fi mu gën a bëgg muy dëkkam bi ak alxuraan ak ñi mu defar ñooñu ñoo ko defar waaw ndax mission moo rëy moo tax fi mu li sëñ Tuubaa gën a bëgg muy Tuubaa ñi mu defar nga xam ne ñoom la def ñoom jikko yu rafet alxuraan ak yëfi yàlla yi moom la dajaloo fii ci Tuubaa ñu defar ko fi mu ñëw fii moom ak sëñ magam ju tedd ca si Abdul Ahad ak rakam ju baax ja sëñ Abdou Samad ak Cheikh Chouaib ak Cheikh Abdou Samad fii lañ nekk fii ci Touba sëñ benn ci mbokk yi njaxate yi sëñ ku tudd sëñ euh, Assane Jaxate doomi jàmbaar moo leen doon jàngal ñu nekk fii jàngi fi alxuraan tarbiya wu mm, li ñuy jaarale nit ku baax ci coono ci tarbiya ci ñeme yëpp ñu jaaraleen ci nee na dañ daan buub dañ daan euh, sëkk li lépp lu ko bu baax nee daal sëñ bi moo diggoon bu ñu ràññee ràññeelee ak benn ci xale yi li ñëpp di def nañ koy def nee li tax ma jàpp ne sëñ bee ko digle woon mooy sëñ sëñ Saaliw wax de seetlu na bi fi sëñ Tuubaa jógee kenn ñemelu ñeme ñemeetuloo na liggéey loo euh, waaye bi mu daataan tàmbali jàngum xam-xam waajuram dem na mu nekk nag ci loxoy sëñ Modou Moustapha sëñ Modou Moustapha di léppam di waajuram di léppam mu topp ci gannaawam defu ko waajur lu mooy def ko ab sëriñ sëñ Modou Moustapha itam deful woon defu ko woon ab dongo moom defu ko woon rek da koo defoon ab sëriñ ñoom eh, ñi ci gën a doon yi ndaw wax nañu ni bi ñu daataan xam ni sëñ Modou Moustapha di toon si seen ba bàyyi dem nañ ba doon mag ndax balaa masa lekk wala doomam lekk day da da leen di andi moo leen di joxal raxasu téye leen raxasu ñu raxasu bu ñu jëfandikoo ba noppi yëreem yi leen di jox ñu di ci fomp nga xam ne dañoo jàppoon ni seen taalibe bàyyi bu mag la noonu la leen dën tarbiya moom ñu nekk ci loxoom Serigne Saliou jàng jàng alxuraan ci jàng euh, xam ci loxoom jaar na tindo di mooy fi nga xam ne fi la sëñ Modou jamono sant jamonoy sëriñ bi yóbbu na ko fa fa nekk na fa ab diir di fa jàng mu jóge fa yóbbu ko ci daara yu bari ba mu jàng li mu war a jàng lépp wëlbatiku nag samp daara nag wëlbatiku topp sëñ Modou Moustapha di ko tërbiyew ala Cheikh Saliou Mbacké nekk ku teel a xam mission wam ci kaw suuf bi muy ndaw la xeex ak bépp gàllankoor bu mën a dox ci digganteem ak yàlla jubli ci moom di ko jaamu ak liggéeyal. 1933 yaakaar naa ci la sanc got ba mu koy sanc nii nañ ko Cheikh al Imaam waxee njëlbeen ga moo doon léppi boppam mooy jàngalekat ba mooy jëwriñ tool ba mooy jàngalekatu xam-xam ba ndax booba amagul ñu ko ko defal ñu ko ca féete waaye moo ca féete woon. ba mu demee ba am ñu ko ca féete it ña ko ca féete daanaka moo leen juddulu ndax dafa bokk ci boo bëggee sañc dara mu taxaw da ngay fexe ba sa ñoñ di ko def jaral na ko nag lu nekk ba mu amagul ñu ko def fey na ci ay nit neexal na ci ay nit fasant na ci kóllëre ay nit ngir yàlla bëggoon ñu jàppale ko ci ba taxaw waaye ba mu demee ba mujj gi nag daa mujj jàngalekatu alxuraan bi boo ko nekku sa sëriñ mu ne sëñ Saliou nga ne ko foo ko jànge mu ne fii sa sëriñ mu ne sëñ Saliou nga ne ko foo ko jànge mu ne jawri ñi nga ne kuy sëriñ Mansour Sall mu ne fu mu kañ nga fi ñëw mu ne ba may gone loolu mooy koo xam ne léppam moo ko moom moom nag ni mu doon tërbiyaa la ci jiitu mooy yar gone gi ci ci ci ak teey ba mu sëñ moom nite gi lay njëkk a ne ci nit ki ba ki xam moom mooy lan xam ne yàlla sakku ko ngir neen sakku ko ngir caaxaan sakku ko ngir wor sakk ko ngir dara loolu moom pédagogie bi mu ciy jaar ci tàmbali jaxasoo gi muy jaxasoo gone gi nga xam ne xëy na gone gii kat gone gu ndaw ci jàng la toll ci lay mooñaalee loolu buy jàng. bi sëñ Modou Moussa jógee mu mel ni mës ta def dara takk la xasaayam topp ci gannaaw sëñ Fall sëñ Fallou. diggante ak sëñ Fallou it euh, sëñ Fallou da ko daan seet sax seet si na ko xabaan euh, sëñ Fallou yàgg naa wax ci sëñ Saliou lii feeñ ci moom nii xilaafa géem gi ak maqaama yu rëy yii yàgg na ko wax waaw. sëñ Fallou da ko daan liggéeyloo daana ko yebal muy jiite fu bari ci réew mi ba ci ndar. di liggéey lépp lu mu liggéey te booba yooyu jamono ku mën a liggéey la ndax booba yooyu jamono ku teel a bari mbooloo la ku bokk ca mbooloo ma ka doon peese eh, gerte xamal na ma ci xabaan nga xam ne ginnaaw got mooy eh, ak njàppandal xabaan mooy daara ji ci topp nga xam ne daara ji yàgg la jiit na sunu judd lu yàgg nee na ma te peese na fa ay jamono junniy bëri ko cent tonnes yoo xamante booba dañuy konko dañuy konko waaw dañuy konko booba mu ngoog mille tonnes mu yoo xam ni booba dañuy konko ak yari loxo machine amut nga xam ni booba loolu buñ ko jaayee xaalis bu takku la kon moom mënoon naa am lépp lu nit di soxla mënoon na ko am ci jamonoom waaye nee na saa suñ peesee bu ñu bu xaalis bu génnee du ko xam noonu la koy boolee ak mboolu ak ak i ndaw ñu yët ko si Mouhamadou Fadel te sëñ Modou mi wax ni jumaa ji li ci saar bi def buñ ko ci génne woon mag ñu bari ñu ngi koy nettali te booba ci zahir ah, ay ay atam bëreegut am néeg di baaxoo wuñ di ca dugg te waxoo asalaamaaleykum daan la koy wax ci waxee woo woo ko mën a xamee daan ne asalaamaaleykum day day day ubbi buntub jàmm day feewu ay day waral ak ak ba bam bam ba nga xam ne boo xamul yàlla yi da nga xam ne intere bi jàll ko ci yow bu fekkee da nga tisli ni cell mun la waxal alhamdulillahi rabbil alamina wax ko mun yarhamukallahu nga ni cell mun la waxaatal yaxfirullahu lana wa lakum nga wax ko mun la loolu ci diine la bokk daal ni suñ mag bi kat amoon na kum masa jox ay gone ba ci yàgg mu woolu ca kenn kooku eh, ca donga ya donga ya am ca ñu ñëw fi moom ba ci yàgg am ca kurtis li ni cell sëñ bi ne ko waxal alhamdulillahi rabbil alamina daal di waxaat li ma waxaat léegi sëñ bi ne ko lu taxan defoo ko mu ne ko dama koo xamul sëñ bi ko yow ki la yor mënut a ndax nga ne waral naa fekk nga xam ko ci moom bu yàgg. ku ne xam na ne mus digganteem mag dong yi mosut am caabi bu xasee ba wàcce ci daara yi yor-yoru altine fekk ñuy jàng gone gu noppi gone gu tar rek jàng ci sëñ ba directement amul feneen fooy jaari ñëw wër ko fees ko dell nga gis ko mu dindi kaal boppam lal jël mburu di ko daggal ci loxo loxo mi tedd ya gone kenn ku nekk ñëw jël mu toog wër ko ni. ganaar ni ko ay cuujam di wëree noonu la meloon lépp it kenn amul sa intermédiaire luñ ne sëñ baa nga fële naa ko xaar fii déedéet ëtt bi nga ko fekk di gone gu ndaw sa jëwri ni daara nekk ci wetam ki lay jàngal alxuraan nekk ci wetam ki lay jàngal xam-xam nekk ci wetam yow donga bi ni nga amee sañ-sañu nekk ci wetam li nga bëgg a wax ak moom it doo ko ne sëñ bi waxal ma kenn sëñ bi dangay ñëw ne ko man de nangam wala mu laajal la nangam xam ci say situation yi nga nekk yëpp réglé la ko kon ku takkoo woon la ci takkoo goo xam ne ak jaxasoo la daa bëgg tak taqoo goo xam ne ngaa kër gi mën a ci kër gi kooku ak taqoo la waaye taqoo njaxasoo nag mooy koo xam ne ngay jéggat ba ci moom nga wax ko wala mu séen la wal la boppam nga wax ko loolu noonu la nekkee woon mu xaalata la benn jaxasoo bu jafe la boo xam ne kenn mënatu ko sax léegi bu guddee li ngay xamee ne sëñ baa ngi fi soo yeete njël benn genn gone doo ko fekk lalam ñëpp nga ca kër sëñ ba solu ca néeg ba mu fanaan moom yaramam bu tedd ba fa la gone yey fanaan bu fajar nga ñëw asalaamaaleykum mu ne la waaleykum salaam nga ne ko mbàkke mën la kebe wala nga ne ko mbàkke mën la jóob nga tànn say gone ci lii wër ci moom ne ko dina dem leen jàngi keneen ñëw tànn ay goneem keneen ñëw tànn ay goneem waaye bu fekkee mi ngi ci daara ji fanaan si fi rek fanaan gone yëpp fa moom la ñuy fanaan ku xëy itam booy tari directement ci sañ ba ngay dem kon noonu googu jaxasoo noonu la nekkee woon ci daara yi di yarkat boo xam ne day séen di xool di xam di xammee di ràññee

Pamata mati wetune Mata imat kesasne waaye Cheikh Abdoulaye moom um, nii mu toppee Serigne Fallou noonu la ko toppee woon booba daara yi tàmbali naa bari liggéey bi tàmbali naa bari li ñu liggéey bari na lool jamono yooyu waaye lépp lu ñu liggéey noonu lay noonu rek daara ju nekk la ñuy liggéey bu ñu noppee ñu ko dajale daal di boole boole ndaw ñu yët ko Cheikh Abdoul Ahad suñu am sa tu mu suñu Abdoul Ahad moo ko wax lii ko suñ fallu seereel ci ne kenn mënu ko jumaa ji suñu Abdoul Ahad tamit seeral na ko ko ne daan jël lu mel ne eh, gaal yi eh, gura eh, dàmbay gura yi def ca la lim am lim bay ak liñ ko jox addiya lépp dajaloo ko def ko ca jël kenn jox ko ko bu demee ngir sax ngir ngir sell gi ak bañ cee gis dara dana ko joxe noo xamee ne sax buñ ko ibbiwul duñ xam ne alal la ca ne dañuy jàpp mën ngaa jàpp ne góor a ca nekk ba sëñ Abdoulaye wax ne ah moom mii de kenn mënu ko fi. bu dee wàllum mbay mi dalay won ni man na mbay mi ñi ma koy jox maa ngi ñoom ci yem suñ tubaab ma jur jur leen kenn gënu ma ci waaye damaa bëgg mu gën a sakkan moo tax ma di ko yóbbu. ma bëgg nag ngeen ànd ak man ci loolu ndax man mii koy di leen taxaw di leen dundal di leen jox aw jiwu yi benn doomu gerte du ci dugg sama gimiñ wenn gubu mbool du ci dugg sama gimiñ jann àndaar yi ko ci togg ci sama njël lépp la ñuy ànd joxe ko damaa bëgg na ngeen def ni man bu leen jeexaatal seen bopp bu leen jaayos ngooñ bu leen yaru nag bu leen yaru bëy bu leen wut alal ndax ne ci daara gi di wut alal day waral boo fi jógee mu jafe la wala boo ko amee du barkeel wala boo laaxiraa doo fekk dara ndax day fekk nen yi nga aman ne da nga koo naanaan wutoo woon ay ginaar bu ngeen bëggee nag nen yi ñu toj ko ba laaxira nga am ginaar yu bari da ngeen koy bàyyi ñu bëf ñu bëf ko daal lay gaaral ne la am nen mënoo koo baxal lekk ko wu ñu ko at am cab cuuj ne ci gi nag di wut alal ak jógee fii mbubboo sëñ bi di ko daraja wax ngir utiliser tari bi yi bañ teg la foo xam ne bii yàlla teguloo fa ci ay pexe wala ak njibar wala leneen dangaa ngaa mel ne jaay sa addina sa laaxira jënde ko sa bu ëllëgee itam mën ngaa dem ak àjjana ci baaxu Sëñ Tuubaa wala ñu ramm la waaye garaatu murit saadix yi ñuy wax ku yàlla gërëm ak yooyu duutoo ca bokk te loolu ñàkk caa bokk daray àddina jëru ko loolu nag xam nga bu la ci deeyee ba noppi wan lañ la nag maa ngi ko waroon a gën a mën a def ñëpp ndax man bu ma ko doon lekk du du ma araam ma koy jox ñoo ci yem waaye damaa bëgg mu sakkan ndax bërigo pepp kat boo ko defee njël togg ko kenn la yedd waaye boo ko jiyee nag laxasaa yu bay ko bu déwénee nag nga mi téeméeri bërigo nga ci yem loolu laa leen di fàggul te bëgg te bëgg ngeen ànd ak man ci loolu. mas naa toog njàppandal ba yàgg rek mu ne nañ ma wol ñëpp bi ñëpp teewee mbooloo mu bari la fukki néeg ak ñaar néeg bi nekk def 16 personnes kooku dootul mbooloom juróomi nit ak juróom-ñaar bi ñëpp teewee mu ne ñëpp ñëw nañoo ñu ne ko waaw mu ne diw mu ne ana diw diw moom mu laaj moo manqué te diw moomu mu laaj ndawee gi tax ki ki mu bokk daaram sax fàtte ne ko ndax ndawee gum ndawee bi sëñ bi jéeree ne ana diw rek kooku képp a manqué ci daara kooke lañ dem fekk ca naya ca euh, ngédd mu toog ñu ne ko ñëwal wuy sëñ bi mu gone koo xam ne juróom-ñaari at képp lay door am keroog bi sëñ bi dem Touba da ko yóbbaale mu am fa ñetti weer comme noonu mu daan miinal ko boppam takkoog moom ci ba yara ba sedd mu door koo waat ci daara ja kon noonu la nekkee woon ci daara ji ci ak jaxasoo goo xam ne seexlu wu leen ñooru leen dañ ko sosoon rëkk def ko bàyyi def ko maam def ko sëriñ def ko muy seen ndal ji xel loolu nag mooy mooy yar yi ni nga xam ni moom la lay woon ci mbay mi moom la lay woon ci njàngin alxuraan mi moom la woon ci toogin wi ba ci njàngum xasida si mi sax ak yëkkati yi day wane ni li ngeen ciy def lépp dina leen ko def ngir dundale ko ndigalul Sëriñ Tuubaa waaye bu ko def ngir naa damaa neex baat ak damaa a jàng ak maa fi raw ak yooyu booy bindu kaamil la ko noonu daan laaj ay gone gone yi di ko dénk am ma dénk sama gaal gi am na dégg xale xesa bu xorom buñu ciy nettali da koo dénk dénk gaal gi def def xam naa da doon génnee ci miskin mu fàttee tëj xomb la moromi gone yi ñëw jël ko mu ñëw ne sëñ bi ana sama miskin ma sëñ bi ne ko gis ma ko mu ko yow laa ko dénkoon sëñ bi ne ko léegi nu ñuy def mu ne ko man danga ko danga ko danga may fay sëñ bi ne ko nag léegi da ngay bàyyi ne suut miskin ñëw mu tibbal ko ca dane nag léegi nag ginnaaw demee da fonk defar gi xam nga loolu lépp infitah ouverte nit ko ouverte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 ku ne dégg na ci liñ ci liñ ci wax ne daa daana wax njabootam dee leen ziyaare Serigne Saliou ndax ziyaar ko day yokk pëstéef Cheikh Mouhamadul Fadal mag mu bokk ci mag ñu njëkkee ñooñee nettali na ma ni mas nañoo dem di fa di ko nuyu di ko siyaare bañ ko siyaare mu laaj leen fu ngeen dëkk ñu ni ko kër Serigne Saliou mu ni mu ni mu ni leen ngeen ne mel ngeen góorgóorlu fa fa ngeen ne de su ma ma mënoon a dellu ni mel ni yéen dama fay dem bu ngeen dem bu ngeen demee na ngeen góorgóorlu su ma mënoon a tol ni yéen mel ni yéen dama fay dem wax nañu bis sëñ Saaliw day da jàmbat ne moo amoon mbubb mu baax moo mën a demee ci tool yi daal na baax ba mu koy wax rek ba muy noppi rek sëñ Abdou sëñ Abdou Xaadir jël na am mbubb yebale fa di ko jox addiya te fekk mbubb mii sëñ bi sëñ sëñ Saaliw bëgg moom lañ ko ko indil Cheikh Abdoul Khadir lépp luñ ko masaan woo a wax mbaa Sëñ Saliou yëg na ko buñ naatab lee mu ne lu mu yëgul bokkul lu mu de na ko ko yëgali noonu lañ ko nawloo woon noonu lañ ko gëmee woon noonu lañ ko gërë gërëmee woon ñoom ñëpp nañu maas ci gërëm ko bi ki des doon taxoo koo xam ne day mel ni rek xarak doom ja xarak doom ja danañ taxoo waaye léeg-léeg bi mën naa lekk fàtte ko mbaa mën naan fàtte ko ah, Sëñ Saliou Mbacké nim taxoo yow gone gi nii la lay leele di la jox ngay lekk danaa ñëw ci daara ji contrôler sax la ñuy togg ca mbanaga ko takkusaani suuf mas naa ñëw njàppandal tibb lu ca wattu as wattu mooy li ñuy tànqe ñeex def lu ca cere ci digg ngoonu ngoon toog ci toog ci ngay njowaan gi di ko mos lim jublu mooy ndax vitamine yi ñu soxla ci lekk ndax mi ngi ci te loolu yi muy mos ci la donga yi di reer bu ngoonee kon kooku ci wàllu santé bi nga xam ne mooy euh, alimentaire bi mu ngi koy contrôler sëñ Suwayb bi nag moom yaakaar naa doomi sëñ Suwayb yëpp moom benn lañ waaye nag sëñ Saaliw ak sëñ Suwayb moom moom moom moom daf ci raw nag moom ndax li ñu bokk dafa bari dañoo bokk ak mbokk bokk daara waaye bokkaat mission bokk déggoo nag xaritoo bis bi buñ nekkee Touba ñoom ñaar bis bi dinañ ci gisante lu ëpp ñaari yoon kii dana ñëw seet si ko ci bëccëg bi bu guddee sëñ sëñ nga xam ne moom guddi baaxoo génn dana ñëw faw guddi gi dana ñëw seet si sëñ Saaliw nekk fa daanaka guddi gépp ba boo muy tut ba mu fa laa jógee fajar dana jot te loolu moom daanaka ñoom ñaar bu ñu nekkee Touba loolu ba ñu nekk ci daara ji gis nañ waxtu ne euh, sëriñ Saaliw di ñëw ci sëriñ Soyba. moo ko sëñ Mbàkke sama loolu nag am nañ ay relation yu dëgër yu teel ndax sëñ Mbàkke sëñ Saaliw yàgg gën a koo liggéeyloo te booba sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke Gaynde Fatma mi ngi fi toolam yi ci njurul la ko jëkkal sant ci ab liggéey ba sax sëñ Cheikh wax na ko ni xanaa kay sëriñ danga ko bëgg a samp waaye am nga ñeneen ñoo liggéeyloo ñu dut sëriñ dem nañ fi boo xam ne sëñ Tali waxal nañu ko boppam ni day bu fekkee woon tey dana xam ne samp bi dëgër na muy ci xel kom yu mujj yi at yi nga xam ne itam mooy bu nas yëpp mooy bu nas yëpp moo koy dina tudd la tudd yi ay waaye maanaam sa borom bu dee bu dee bu dee sa morom bu dee sa yëpp dara bëgg a weer sa borom ak bu dee sa yëpp dara koo bëgg a jégal kon nag mooy borom moom dana seet suñu yëpp bopp rek te yëpp jégalu suñu borom ñaan sa Saliou Mbacké nekkoon aji defar fees dell palaasam foo ko musaane gis yéemu ngir yërmande jëm amoon ci jaam yi daana wax ku dul yàlla mi sàkk mbindéef yi ëpp ma yërmande ci ñoom yërëm gi doomu aadama yi moom lim ci waxam doy doy na xam-xam maanaam ku dul yàlla saa borom bi ma boole yéen ëpp ma yërmande ci yéen loolu yomb naa xam ndax sëñ bi boo xoolee li muy ñàkk ci alal ngir jot ci donga maanaam donga bi bu demee sëñ bi dana dana dana wax ko ko ko wëri buñ ne daa kër baayam bu doon séquence sori des na ko jëli su nee naa nga ma naqari sëñ bi dana ko bàyyi mu wax ba wax li ko naqari sëñ bi ne ko loolu saafara wane li mu mënta am daal mooy nga toog waaye soo mën a ngoo may toog leneen li nga bëgg lépp danaa ko def soo ne ay dàll mu ne leen ko marché mu tànn yi bëgg boo ne ay sër mu ne nañ ubbi magasin yëpp mu xool yi mu bëgg nga xam ne jot ci doomu aadama ji njëkkanteeg moom ba ba ba ba jàngoree bakkan yooyu mu dindi ci li man wala bu gone gi amee chance mu toog fi ba sëñ bi dindi ko 100 pour cent wala mu dindi ko 95 pour cent te lu mu dindi du du lu la toll ci ak leer def ci loolu moom sëñ bi jaral na ko ñàkk tey tey tey milliard jan doomu aadama junne sëñ sa loolu jaral na ko. man mii rek mas naa am taasu ci bët lu mel ne taasoor la ko ma ngi daan wax xonq-xonq la bu ne ci kaw boo ñëwee mën ma lu mu doon mën ne ko sama bët bi daa mel waaye nag bët bi neexut gis ndax ba li ngay tourné ba ba mu koy gis mën naa yàgg waaye bi ma nee nii yàlla dogal sëñ bi gis ko ne ma lii de da nga dem ca fa ñuy fajee soo demee nag nga laajte ka ñuy wax anis mooy faj loolu daa ne def ne nii ma anis li tàmbalee fii ba fii lay faj bu dem ca ka ñuy wax ndax li fii jëm suuf lay faj xoolal ma boobu boobu coono ak boobu himma boobu itti la daa damay jàngal ne man ginnaaw laa doon xam ndekete am anis docteur bët ak nopp yooyu la nii def loo xam ne daa ba teer ma ne anis nag boo demee li tàmbalee fii jëm fii lay faj bul dem ci añ nag ndax kooku li tàmbalee fii jëm fii lay faj Saliou Mbacke yeesal lislaam ba mujj di lislaam defar ndaw ñi teg leen ci yoonu jub yoonu siraatal mustaqim ki nekkoon ko safoo jaamu yàlla dëkkoo ko defoon ko wéttalam ba foo ko fekk dey julli baa muy wérd baa muy jàngte Seex Saliou Mbacke nekk ku teel a xam mission wam ci kaw suuf bi muy ndaw la xeex ak bépp gàllankoor bu mën a dox ci digganteem ak yàlla jubli ci moom di ko jaamu ak liggéeyal. Quraanul Karim moom la daan naafila guddi sëñ Dame Touré eh, ma waajuru sëñ Lamine Touré mi doon waxtaan sànq dégg naa ci moom mu wax loolu ne dem nañ liggéey Louga yoon woo xam ni nee na bi ñu reeree tëdd la tàmbali alif lam mim zalika kitaab bi buñ jël mu dégg muy eggale nga xam ni euh, kero daa fanaan ak moom cam néeg moo tax mu xam loolu liggéeyal alxuraan jooju boo ko laajoon danaan la liggéeyal sëriñ Tuubaa la ndax lu mu mës a yëngutu rek sëriñ Tuubaa sëriñ ko ci tax a yëngutu daana wax naan sa law de moom jàngal alxur jàng alxuraan day bëgg a bokk ci kuréelu sëriñ Tuubaa bi rek jar na ni yaa malikil alfaada alfaada wa bi turaqi xisbaka ci ci man nga yéegal sa sa kuréel wattu bi nee na war a tax murid yëpp mokkale alxuraan parce que ngir yàlla sëñ bi bi kon moom noonu la dëkkee jàng alxuraan guddi ak bëccëg foo toll alxuraan bu yorul kurus gi ribiir di alxuraan a nekk ci làmmiñ bi bu tëddee ci njowaan gi bu tëddee ci néeg bi guddi boo nekkee ci néeg bi mu néeg bi lëndëm da ngay dégg muy jàng alxuraan alxuraan daawul jóg ci làmmiñam daa iman xalifa alxuraan moo la woon daara ju mas a sanc alxuraan dañ fay njëkk a jàngale jàngalekat yi alxuraan ba ko amagul dañu daan daj lu ne jël di fay su la neexee wala mu jël la ngir yàlla ngay liggéeyal waaye liggéey bépp na daan la sëñ Tuubaa ngay liggéeyal ci alxuraan ji jàngalekat bu fa mas a jàngale loolu lay wax boo demee ba mokkal alxuraan ci këram it la damaa ma ci liggéey sëñ Tuubaa bii di alxuraan soo demee ba mokkal ko nga jàppale ma liggéey sëñ Tuubaa bii xam-xam kon moom léppam sëñ Tuubaa moom moo liggéey ba jullit noonu la ci meloon daraan eh, eh, eh, yor yoor bi bu ma di julli ci bu muy am kàttan daana egg ci da nga koy yërëm ndax defe ne dana daanu dana taxaw fi yoor yoor bi tàmbalee taxaw ba ba sawaal ji bëgg a disil dana sëgg di sëgg di sëgg bay reg-regaan ba nga defee ne dana daanu te boo am na kattan noonu la daan jàmmoo yàlla te noonu la ko daan defee guddi noonu la ko daan defee bëccëg xissa bu gàtt sëñ Bay Jóob ñu mii mas na ma ko cee nettali benn donga bu nekk fii ci kër gi daa bind kaamil ànd ak sëñ bi dem mbuur noonu mu daan def nga xam ne boo bindee kaamil da ngeen di taqoo sëñ Saaliw ba ma saan andib kaamil da ngeen di taqoo ba taqoo goo xam ne moom yow lépp mooy sa lépp kenn nit dootul mel ci yow ni nga mel ci moom day taqoo ak yow buy dem da ngay dugg ci oto bi bu lu muy séddale da nga mos fu mu nekk danga nga fay ne noonu mooy kuy door a bind kaamil noonu la aje woon bi ki desi mooy dana wut ak ko ba mu fees ak yére xëyte yére yi tàmbalee ci ba ci suuf dala koy wutal door laa tànn loo ci daara ji ju la neex na nga door dem tàmbale di jàngi boo demee boo fa demee da ngay jàngale alxuraan ji nga man tàmbale di bi noonu la doon tërale ay programme waaye bi mu demee mbuur nag ànd ak ak tuut tànk kooka man alxuraan génn kilifa gu mag ci mbuur ñëw di ko siyaare bi mu koy siyaare bay dem sëñ bi wut yëbbal yu baree bari yu doon a doon duy saako ba fees xaalis dugal na ko ci biir saako bi takk ko daal di woo jëwri ni kër gi ne ko àndal ak moom soo demee yow mii di jëwrin ji yow boo dee ba ci buntu ba na nga ko waaye ndonga bii moom na yo ko yanoon saako bi saako ba ca kër ga bi mu ñëwee da ko ne ah mbaa xam na ne kooku yanoon saako bi kàngum alxuraan la ndax ki mu yan saako bi képp mu koy yóbbul kilifa gi daa bind kaamil moo ko booleeg sëñ bi te kilifa googu boo ko seetee moom bindul kaamil bàyyam bindul kaamil dama yàlla baal ñu bari bari ci ñoom binduñ kaamil waaye ki yenu saako bi kon moom sëñ bi li muy defar rek laa bëgg du ma dugg ci détail bu xóot bi ci yeneen yi ci xewaat waaye kon li ngay déggee mooy nekkete ndawam li muy yónni di ko yenuloo sax borom alxuraan la ko def ci teetere yi te te di teetere yi mbokk nañu nga xam koy fàttali itam jaxasoo bu bare bi diggante góor ñi jigéen ñi siyaare kaay yëpp war nañu jigéen ñi war nañu berante góor ñi ko fàttali fàttali jaamu yàlla yi ñu war ñu juróom ak weeru koor ak ak ak sarax yëpp ñoo ngi koy avant idu lislaam ji li yéex yëpp xam nañ ko xanaa di ca soññ rek waaye ku xam na ko maa ngi ci sama ci maa ngi tuub tuubal yàlla sama borom Cheikh Saliou Mbacké doomi soxna Faat Jaxate ak Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul dafa cosaanoo ci diine moo tax yëngoom ak ak dalam lépp di lislaam dafa nekkoon ku am yërmande ci ñëpp ndax yéenam moo nekkoon ñëpp baax te jub tegu ci yoon wu leer bàyyee na waa Sénégal ay junni junni yu am njariñ te bàyyeewul Sénégal benn personne bu amul njariñ loolu moom ma ta bàyyi xel bu dee côté économique a lim bàyyee Sénégal ci ay chauffeur tracteur yoo xam ne mën nañoo ku leen berloon seen am ñaay mën nañ faa liggéey lu jeex te jub lañ def duñ ko naane sàngara duñ ko toxee duñ ko dafaane kenn xamul nu toll ay junni junni la ñim bàyyeel ñoo xam ne dañoo bëggoon ay daaree alxuraan samp ko ñu toog di jàngale riwaaya bu wér ay junni junni la lim fi bàyyi ci ñoo xam ne bu ñu fi rank laayoo mën a joxe ay lessons ci téere yëpp ay junni junni la waaye lim bàyyi ci ñu silvisé ñu set ñu baax ñoo xam ne boo diisew ñoom doo joom ay junni junni la comme saamaas gi nga xam ne ku nu xamante démb xam nu barki démb xam na ni ñii buñ toogee ci ba nga ne ni Sëñ Saliou woo tax bu leen nit ñi day jox addiya Sëñ Saliou woo tax bu ñu doyee nit ñi bay wax nit ñi dégg Sëñ Saliou woo tax bu ñu bu ñu wuuteeg seenu askan Sëñ Saliou woo tax ñenn ñi ay football kat lañu ñenn ñi daa dem ca làmb ja ñenn ñi daa bëlóot ñenn ñi daa newetaani ñenn ñi mokkal alxuraan ba noppi di ko wutee alal ñenn ñi def sëriñ si ndaw si moroom sëñ bi di la wuli di la tërbiyee ba foo dem di fa buub di raxase wanag di yenu ay ay booli boole ko ak mokkal alxuraan euh, jàngi xeeti xam-xam yi ba mën a woy te doo dox ba nit xam ko ci yow doo jëf ba nit ba nga xam ci sa jëf lañ koy xam wala sa liggéey bu jàll waaye sa sa sa doxin bopp nit du ko ci xam loola lañ soxla ci nit. la ma xam daal man Amadou Gueye mooy doomu sëñ Tuubaa jooju il légalist légaliste ndax ni mu jeexitale ci ndaw ñi. te damaa wax ni yeneen doom yi Sëñ Tuubaa yi ci des jeexitalu ñu noonu ci ndaw ñi ba fi mu toll nii rek boo amee ab seetlu boo duggee ci jumaa boo gisee ndaw ñi ni ñuy waree bërëbu Sëñ Saaliw dara warulu ko lu dul jeexital gu mu jeexital ci ñoom. 2009 2010 may dox si benn milieu boo xam ne Sénégal euh, sëriñ bi ñëwal boppam si jamono boobu nag circonstances yooyu noonu mu nekk foo xam ne si nii. waaw bu dëkk boobu ñu ngi nekk Cap Vert xam yoon boobu mu def foofu mas a jaar da ngay am da ngay am ay jafe-jafe da ngay gàllankoor ay wóyoo fa nekk waaye man man mën na bis man foofu laay jaar maa ngi am sama xarit boo xam ne nu nga wax moo taale gay kooku si yoon bi ma ne ko yoon bi laay jaar mu ne ma yoon bi boo fi jaaree gisuma ku la mën a taxaw si kaw suuf boo fi jaar di faatu ma ne ko man fii laay jaar waaye bi ma jaaree si mbedd am lu ma teg loxo ma jàppoon sax wuyu yi la ma tourné bëgg doon muy ko tedd gi mu foto sama ne ma nii ba léegi waxtu dama jamono boobu noonu te li ma la wax ni entre 2009 2010 la kon kooku moo tax saa su nekk dama koy yëg saa su nekk dama koy yëg si sama sama xol si tolluwaay fi mu na fekk. la ma waxoon loo xam ne lu yéeme la ba ma laajee lu urbanisme benn ajuma nii rek ba ma wax ko dafa ne ma lii de am nañ njëriñ yoo xam ne lan lay jàppale yow Amadou Gueye mooy kayitu kër mu ne ma sama kër kii de amul kayit. jumaa yi amul kayit xaw ma ca dara te loolu mu jiitu lépp keroog ba mu ka waxee def naa noo xam ne ku ma fekkoon nga yàq dama koy dama koy poñe ndax dama ci yéemu mu ne ma nag comme si itte la nga indi la fi ngir yàlla ak sëñ Tuubaa boo jógee yaa ñi ko séq ñëpp na ngeen daje boo xam ne fu ñu jaar ba ku tëkk Tuubaa am kayit ko ni ko yoon waxee ni ko waa Mbàkke amee jaareem Kaolack te nga tàmbul ci man loolu ba mu ko waxee ci laa génne wax ko préfet fa laa xam itam sëriñ Saliou loo ko jege jege jege jege bu la waxee leen loo xam ne nii da ko war a jàlle da nga ko war a jàllale fa laa xam itam ku mu xamul du mën a wax ak yow ba ma demee wax ko préfet préfet ñëwaat ci ci moom gëmul loolu sëñ bi ni kon ndox bu mu ñuy ba ma diggee ñëw ci yow da ngeen ci taxaw ñu woo waa domaine ndax titre foncier la comme Touba titre foncier la dëkk boo xam titre foncier la lu ay kayit amu fii lu mel noonu. ban daje waa domaine ak waa kadas waa urbanisme ban daje benn benn bis lañu génn benn këyit boo xam ne méngoog naa jamono méngoog naa yoon te boobu moo ko signé bu ñu wax ko mu ànd ci ñu nañ ko doxal loolu nag yàlla miy dogal ci fii ma toog man yow loolu tam ngi dox. waaye loolu amoon itte lool amoon itte lool. soxna yi liggéey ci jumaa ji man maay def glace ak ndox jar suma pot ni maye ndox ba ñëpp daj bu ñuy liggéey ca kees ak sëñ Saliou ga ñoo koy minaas ñooy defer lépp may mayee ndox ba ba ñooy liggéey ba wàcc léegi nag heure buñ may wooyee ci ndox mi rek dama fartu dema ay nu raxmati soxna Faat Cissé laa tudd Saloum waaye jaayante moo ma may turu ay nu raxmati soxna yëpp moom lañ may wooyee wër na sëñ Bamba parce que sëñ Saali. maa ngi fàttaliku itam en 2004 mos na woo gouverneur Alkali Traoré bi fi nekkoon mu woo ma maa Matar Jaxate ba mu ñëwee mu ne mat mu gouverneur damaa bëgg ngeen jàppale nu dëkk bi teg ci yoon. boobu tam fa lay wane également républicain ak légaliste am ndax boobu Ablaye Wade bu ko waxoon Ablaye Wade ko gëm waaye dafa jaar ci gouverneur kon ci gàttal daal sëñ Saliou. itteem yëpp mooy dëkk bi waaye tege ci yoon marché bi lakk tey occas gi xamoon na ko gisoon na ko moo tax mu waajoon marché fii ci këram gi waaye lii la yàlla dogal kon nag yàlla na ko yàlla fayal. Cheikh Saliou Mbacké dem bàyyi fi ay kàngam. ci juróom-ñeent fukki atam ak ñaar ci la dëddu. bàyyeek askanu Sénégal jaaxle. ak wu tiis àdduna ni selew wéet ñu dëkkee jooy. ki safoo woon ndaw ñi faale mag ñi nax ñu. alxamis guddik 27 jàpp 28 décembre atum 2007 seex saalihum mbàkke boroom xelkoom yàlla nanu ko yàlla fayal yokk ay leeram tataas ñu ci barkeem tataas ñu ci barkeem tataas ñu ci barkeem tataas ñu ci barkeem tataas ñu ci barkeem tataas ñu ci barkeem أعوذ بك من فتنة الماء والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن أصحاب النيل وسوء المسير السلام عليكم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين